subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah di nuyu kenn ku ci nekk ci daraje ji ko sunu borom jox te muy daraje nit ba tax mu ni wala xadd karam naa bani aadama man yàlla maa teral nit taraanga jooju mu teral doomu aadama yàlla nañ ci yàlla dugal ba bu mu ñu boole mukk ci ñi mu wax ni suma radan naa ko asfala dañuy yëkkati ba yàgg mu dañu delloo yàlla buñ ko yàlla teg ñoo ngi jiital ci nuyoo di ki nga xam ne moo di xalifa bi Cheikh Al Bekkay ibnu Cheikh Al Bekkay mu maam Cheikh bu Mouhamad mi nga xam ne moom la yàlla dogal tey muy xalif général Qaadiriya ba pare di al xalifatul am di usatul kunti ñoo ngi koy ziar bu baax di ziara mboolem njaboot yi mu fi nekk yépp di ay rakkam ak doomam ak sëtam waaye di nuyu imaamu ratib sunu wayjur al imam Cheikh Sidi Omar ak mboolem aima yi nga xam ne yëpp ñu ngi topp ci ginnaawam te nekk fii ko defee nuyoo boobu dañ koy teg ci suñu loxo ndijaay ji nga xam ne moom lañ jàkkaar lool muy alxaaji Mouhamed mu suñu maam alxaaji maam bu Mouhamadou Kunta mu jot loolu ñu nuyoo boobu njaboot gi nga xam ne yëpp ñu ngi fii waaye it ñu leen koy nuyu ci kaw suñu ndigalu kilifa nga nga xam ne fa lañ bàyyi ko te wax ni su ko mënoon ñun ñooy ànd ñëw fii mu di Serigne Abdou Makhtar nga di xalifa Serigne Makhtar Kounta ci njaboot gi ak mboolem njabootu Serigne Makhtar Kounta gi yépp Serigne Beka nag am liggéey bu mu ñu ci santoon tuuti yàlla xam ni démb laa ci soog commencé sax di ci bind bi may pare une guddi jot na waaye na dama da di man sama baay dafa dafa dafa dund juróom-ñeenti xalifa ci commencé ci maam Sidi Maxtaar mu mu seexal bu naa ma ba ci maam alhaaji maam bu sama baay fekk na seeni xilaaf sama xarit la woon te lu bari daana ma ko wax kon lu bari su ma ko wuti feneen nit du sori kon ñoo nuyu ñëpp di jéggulu kàddu gi nga xam ne tamit ñu ngi koy yëkkati ci kanamu borom xam-xam yi ndax soo dee waxta amoo xam-xam boroom xam-xam bu lay déglu dafay mel nii koy jo koy jox lekk gu ñorul lekk gu ñorul boo ko dee lekk doo ko bëgg a sàkkani kon luñ fi wax mu dëng ngeen baal ñu ko te xam ni sunu gàtt xam-xam la ak sunu gàtt àlluwa dañu wax ni yàlla subhanahu wa taala dafa sàkk mam aadama li yakuna xalifatan fil ard yàlla dafa bind aadama def ko pour mu doon kuutuwaayam ci suuf wa xalaqa zawjahu Hawa fa jaalaha rukanan rakinan fi najaaxil fi najaaxil alxilaafati yàlla bind maam Hawa teg ko ci watu Adama pour xilaafa googu mu ko jox xilaafa gi mën a mën a dox ndax bu dul jigéen dara du dox. is bi duuniha laa laa tataxaqaqul xilaafata bu dul maam Adama mi taxaw ci wetu maam euh, maam Hawa mi taxaw ci wetu maam Adama. li maam aadama bëgg a doxal noonu ko doxal yonte bi yi ji ñëwee ni ko damaa bëgg takk soxna daf ko ni tun kaxul mara li arbain jigéen boo koy takk day ñeent tax koy takk pour ñeent bi ci njëkk mooy li maaliha nga ni ndaw si dafa am alal moo tax ma takk ko mu di la financé wali xasabiha wala nga ni ndaw si dafa bokk ci yax bu rëy comme ni ñu koy waxee moo tax ma takk wali jamaliha ya ya, wala ndaw si dafa rawet dafa rafet lool moo tax ma takk ko fu mu laga gars yi ne sa ndaw sange léeg laga-laga nga takk jabar gars yi naa waa ji yelloowu ko waaw léeg-léeg mu am léeg gis nga gars yi kii da jabaram ji moo war ko war a yor mu ni wali diiniha wala nga takk ndaw si pour diine yonente bi nag ni fasvar bi zaati diini taribat yadaak nee na waxtu boo takkee jabar te takkoo ko am diine loolu nga sa loxo jël kon maam ma koodu li ko may lii Cheikh Bounama da koo tànn da koo tànn amoon na da koo tànn xam naa Cheikh Bouna ko mu Cheikh Bouna ma ko muusoon loolu nañ ko bàyyi xel loolu la seen maam Cheikh Seydi Ahmadou Bekkaay bu dama wax ni bul jël foo foo jot jël fa jabar xo ah mu ngo na xool takk yi booy takk da xool xar moomu ñu tudde pël pël ak xar moomu ñu tudde talaabiir su ma su ma amee sama xaru talaabiir yor ko ci kër ga ah? boo yoree sa am man am sama xarit boo xam ni boo masaane yor sa pour bu bëgg indi ci xaram cinquante mille fay kon nga ñëw teg lu sa rek cinquante ngeen baal ma ci wax lima wax la cinquante ngay fay mais bu dee xarit pël pël yi da ngay bàyyi ñu dajale ci dëkk bi du dëkk donc kon nit ki al orq si nit day roy fi soxna yi nañ ko Cheikh dem ko du indi ko mu borom Alberdi di Cheikh bu Mouhamed nga xam ni yàlla def na ko mu nekk jantu bu dama wax jantu njolloor sax mais jantu digg bëccëg la bu nekk ci asamaan ci xool ko jarul ku jarul buusa euh, buuxante xool ko jarul buuxante kon boo bëggee lu baax dangay seeti ña baax ña lañ daan def nga gëm koo def xam naa ni bëggoon naa lu ëpp loolu waaye waxtu bi jot na su ma fi waxee loo xam ne am na ko mu gaañ ci xool na ma ko borom jéggal wax lu baax la bëggoon ak dem doon doon gëstu ci mag ñi ak di bind li ma waxoon ma jëm koo tënk pour indi ko fii su fekkee ne ni ma ko joxee baaxul ah, ngeen xam ne sama àll moo gàtt rek in uridu ila islah mastataatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu na xalwa gambia telim ba ëlfu layla la kamal ñu naa ko cheikh bu wàcc nga yàgg naa wër fii di njaasaan sama turandoo borom njaasaan dëkk na baañ dëkk na daaf kër njobbo binte jaar na faa ñëw na guy suux ñëw na kër gumba faam ba ñëw kër yoro saaju borom njaasaan ci la déggee benn baat bi ko yàlla wanee njaasaan baat baa nga naan ko ël jaaru xabla daar dëkkandoo balaa ngaa wut kër mu ni tànn naa sama borom muy sama dëkkandoo keroog la sañ ci njaasaan sanc ko ci jom ci ngor ci fulla ci diine moom borom njaasaan talubeem yi ar na leen garanti leen ci àddina ku ko gëm du kuy torox ne leen ko cheikh bu wàcc nga ku ne am na benn bis nga jàqu yu xoo turam cheikh bu kunta wàllu laa ko cheikh bu wàcc nga secret bi mu def ci man du leen ni loolu waaru ku mu waar na fit tasuuta ko cheikh bu wàcc nga fu ma rom bu ñang ma naan waykatu cheikh bu baa nga ne ko fekk moom dana donay bu naa ma wàcc nga huwal xalifatu mooy donay bu naa ma neel waaw moo doon nu kuntiyu laajal fii ba suudaan Sindoni xam na bu yow kay demal ba gànnaar nga laajte dellu si di nga nërmeelu njaasaan cheikh bi kay baabu nee na borom njaasaan leeram nga jolli na dem bulan xarit demal ba jasan, leram leeram nga dellu jol bëtt doje ya ba na bambara bu nu sancun nu jaaxaan sancoon na fii ci njaasaan mag ñëpp bokk booloo te naa ñaanal mu julli ay rakka ay loxoom ni raxmaan mayal ma réew mi ndox laa wax dex gi baawaan ndox maa ngi nii sangul feey te boo maree tànqal naan wexul saful lu dul neex lii doy na kéemaan subhaanallaahi walhamdulillaahi laa ilaaha illallaah